am nit ku taxaw ci diggu ci diggu quartier def ko dara ne jàpp ne waa ko ñoom ñoo ko may doole waa som man mënuma leen fay sama jigéen ñi toj mënuma leen a fay man ak yéen ci projet yi man ak yéen ci leket yi man ak yéen ci avec yi man ak yéen fu ne saa yi su ma leen yëkkatee subaak kon bu dégg ba tey gërëm mais tey dama sant boo xam dinaa leen sant ci kanam nit ñi nga xam ñoo ko ñëw sant naa leen gërëm naa leen lii di suum nag nga xam ne dama doomu maa ko mën suñu ci def moom du ma mën dara damay ñaan yal nañ ci yàlla may ay ndam ndam ndam ndam di sant waa Sow de podcast bi nga xamante ni boo gisee ñu taxaw ne podcast Benno Bokk Yaakaar moo tax Benno Bokk Yaakaar dafa composé beaucoup de parti te yaakaar naa ne kenn ku ci nekk taxaw nga taxawaay bi nga war a taxaw particulièrement mbirum Habib Cissé bi nga xamante ne sànq dama taxaw am lu mu wax mu ne politique boolewuñu man ak moom loolu wax dëgg la bala mu ko doon xam tey doomam ji di sëy kenn du ci dugal loxo moom dong laa koy jox li ci des mooy di sant moom parce que gis naa seen taxawaay mais Thiam ma mère Clara su ma limee damay jum Ameth Diop naa seen taxawaay Fatim Fall naroon na teew mais ne dafa am de Dakar loolu sécurité déggal nañ ko ko macha allah di sant docteur Ndiaye mi nga xamante ni kenn mënu ko fay damay ne kenn laa ku ma xool xam ko waaye docteur dafa def loo xamante ni benn nit ki soo defee loolu baax soo ko waxul kuy lim ay yoonam dana ci boole c'est pas la première fois président ku mel ni docteur Ndiaye ak ku mel ni Thierno Alassane Sall ñu ne ma ñu ne ñoom ñooy tax ñu wax ñuy màcc bi ay nit ni ñoom suñu leen amoon wax dëgg yàlla suñu dëkk bi dina développé. le pôle 4 bi nga ne à chaque fois du ma noppi ci ku ne xam yéen dégg nañ ko waaye dañoo jàpp ne ci yoonu siraatal mustaqima lañ nekk ndax politique dafa tàmbalee ci jaamu yàlla jaamu yàlla mooy rendre service ci dëkkandoo bi nga nekk li nga dëkkee d'abord doo ko mën a ànd ak askan kon li ñuy def jaamu yàlla la d'abord doo ko mën a ànd ak doomu aadama lu la dégg nañ ko lu la gis nañ ko waaye dañ ñaan yàlla ñaan yàlla encore delluwaat di ñaanat yàlla lii am ci jéego yi ñu passé ak Cissé ak waaye ak ay jéego yu ko am loolu nag naka koy amee il faut responsable yi nekk suñu ginnaaw bàyyi ñu xel di ñu dooleel di ñu xool di ñu lijjanti di xam fu ñu taxaw te dañoo taxaw ñun waa ñu ne som benn leader politique ñemeetu la dugg ci def te doon ko jaaroo ci ñun boo ko defee am nañu fulla ak fay ay doomu nday kenn ku ci nekk sa soxlay morom mooy sa soxla soxlay morom boobu doo sa soxla moo waral li ñu nekkee chaque jour ba yàlla may ñu kon nag waa Pôle 4 maa ngi leen di sant di leen gërëm sant ñëpp gërëm leen sans exception mais aussi retourné waat ñëw ci madame Ndeye Fall Camara parce que nag ànd boo gis am na xaritoo Ndeye Fall Camara mii taxaw tuddee ma ko sama bis parce que damaa xool ci moom moomu riche tuddee ma ko sama bis tuddee sama bis ba maa xool ci moom Abi Cissé pourquoi Abi Cissé jigéenu jàmbaar la Ndeye Fall ni Abi mel tëddul nelawul noppalu liggéey doo ko xale loolu Ndeye Fall mel. Ndeye Fall noonu la mel grand ak dépense boo ko demee bu ko fekk ñu ci jom ñëpp baax na ñëpp ay liggéeykat la waaye yàlla moo ma boole dana ñu ngi góor di nit ku baax di wax katu dëgg di tey kenn ba pare jub teg ci ndax jub maa moom dañoo xaw a bokk at ndax tam ñu bokk at mooy jëkkëram laa tudd baax di sama jëkkër di wàcc ma fi kon nag soo gisee moo mën a àndal dafa am na qualité yoo xamante ne mën naa ko gis benn aw ma am na àndal may ñaan yàlla yàlla bu seytaan mu ci monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ndax xale yi boo leen xoolee am na statut bu ñu jàllale léegi Thierno Alassane Sall ñëw na suñu jàkka ji ba ma koy wax ne à chaque fois sa ñëw som bu gàcce bi mu njëkkee ñëw som ciment ak suuf ak fer dama wàcce ci sama jàkka ñu ne déet ñu ne enveloppe ñu ne déet ñu wàcce ma keesu kaame ñu di ko foofu mu ñëw ci suñu lekk financé jigéenu groupement bi ñu ngi may dégg ñu ngi ni toog soxna laay waxee liggéey nga ñu ba am 2 millions le 5 le 5 janvier passé ñu pare si loolu mu am jigéen ñoo xam ne ñoo nekk ci koñ bi jàpp ñoon fenn bëgg leget ñu ciy dox di ci dox ku mel ni ku rakay dafa gën a ci tànkam ba leget boobu taxaw tey leget boobu taxaw ci koñ bi ñu tuddee ko ceeb ma liggéey nañu ba tabaski bii passé financé nañu 2 millions ak ñu ngi ni taxaw nañ wax su dee am na wala amul am na leen am na leen liggéey liggéey la ñu gëm ku ñu jàppale ñu liggéey ku ñu jàppale ñu liggéey rawatina nag bu ñu àndee kilifa boo xam jàppale jigéen ñi moo ko tax a loolu la ñuy ñaan di sant di jégalu ñëpp encore une fois jégalu waat waa stop ndax métti na nga taxaw fu mu ñu interception bâche ko li ñu war a dem jàkkee te amuñu fu ñu am nañu feebar maa ngi jégalu ñëpp di baal ñëpp ak leen parce que yàlla leen yàlla defal jàmm édition bii nga xamante ne mooy Encore une fois. bëgg sant naa ko sant bu amul at maa ngi koy sant di ko gërëm di ko remercier mais aussi mënu ma wax sans bañ a remercier sama goro ak sama njëkkee ak sama njëkkee maa ngi leen di leen gërëm ndax suñu suñu war a ñëw kon du neex yaakaar naa lii ñoo si jàpp ba mu nekk sant naa leen gërëm wa salaam. ñun mënoon na koo jël parce que fii ay jàmbaari liggéey fi nekk ñii taxaw ñëpp ñun ñooy ànd di liggéey fi nekk ba tey mais yàlla dafa def tey jii ci tànge bu nekk jàppoon gis bi porté ko amoon avec moi mais des fois toogal mooy marraine yàlla ko si yàlla fay ñu des mooy ñun jigéenu Thierno Alassane Sall dañoo engagé liggéey moomu tax jóg ànd ak di ko jàppale mu mu téye jigéen ñu engagé am fidélité topp ci di daw dégg dégg gis ñu kenn yu tere li ñu sax fay ci am leneen sax ñu leneen soxalu kon li ñu war a def mooy ak bu dee ko teg subaa di liggéey teew na da soo ko dee xool moom liggéey def ko yombal dañ jël Thiès commune départagé ko y a l'est l'ouest et le nord ci biir gox ministre des sports woon kon jaaraama Thierno Alassane Sall bëgg na jàpp ci dëkk kenn umlawul nag lool ku yéeg moo la ku daaneel moo la yéegal kon li ñu li suñu am ko jox ba mat sëkk waaw góor ñi dañu soo ko woon ma dañu jaaraama ndax li coow li moo la laaj kon bu fekkee loolu des na nga delluwaat ñu def waat marraine marraine li ma sax rek moo ko julu liggéey liggéey la bëgg man liggéey laa bëgg fee ma nekk ci Grand Thiès maa ngi ànd ak jigéen ñi ña yi ñi ngi ci ginnaaw ministère na Alassane Sall mi nga xam ni mi ngi def liggéey bu ama am solo ci ministère bi nga xam ni dégg nañ ko ko ñëpp gis nañu réalisation bi nga xam ni yi nga xam ni def na ko ci courant bi kenn nattable wu ko koo xam ni muy guddi muy bëccëg liggéey rek la xam moo ko tax a jóg moo ko soxal nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale pour mu réussir mission bi nga xam ni moom la ko Sénégalais yi dégg. wax ji te bàyyi le ministère Thierno Alassane moom lañ ko xamee ci la nekk amul jotu wax amul jotu détail ñi nga xam ni nag euh, liggéey taxu leen jóg wax ju sew moo leen tax a jóg defar taxu leen jóg jaxase moo leen tax a jóg. ñooñu ñu ngi leen di artu di leen wax que ni su fekkee liggéeyuñu nañu bàyyi ñii liggéey liggéey nañu bàyyi le ministère Alassane Sall mu liggéey moo gën wax yu sew yi ñuy wax te li ñuy wax teguwul fenn dara du ci dëgg ay def lu leen neex la wala wax lu leen neex pour seen intérêt personnel dañ leen di wax que ni nag na dagg dootuñu leen mayati kenn ku jóg. di wax lu la neex li ngay wax teguwul fenn du dëgg tey du dëgg suba di ko jëmale ci suñu leader mooy le ministre Thierno Alassane Sall il faut que ñu taxaw ci loolu wax leen ko ni ñi koy def xam nañ leen liggéey taxu leen a jóg te xam nañ ñu nekk ci ginnaaw mais duñu nangooti kenn kuy jóg di taxaw di ŋàññi suñu leader wala mooy wax na ko su dul noonu ñooñu di ŋàññaatee di ne su dul noonu ñoom ñoo àndoon moom démb di ko tàgg bu dee ko mu defoon leen lu nekk donc bu ñuy dem nañu dem ci jàmm te noppi désormais dootuñu nangoo di kenn ku di ngaañu suñu leader de ministère bu Alassane Sall. Thiès a ko tax a jóg président Macky moo ko tax a Sénégal la ko tax a jóg mi ci yoon di dem di liggéey di def ay résultats ñëpp te ci seen bët donc nañ leen ko encouragé jàppale ko bi ci des mooy damay dellu santaat samay jigéen am na ku ma fàtte muy Koura Keita di jàmbaar di kuy liggéeyal le ministère Alassane Sall di sant aussi Urey di santaat marraine bi mooy Ndeye Fall Camara di santaat Nogoy Diop di santaat aussi ñëpp ñi nga xam ni ànd nañu di sant sama jigéen Moussa Ndour mi ngi fi woon ak ñëpp ñi nga xam ne tey wuy si nañu Marème Sy Sokho di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen encouragé di sant grand Ali ci taxawaayam ñëpp xam na ni kuy jàppale le ministère Alassane Sall amul guddi amul guddi amul bëccëg bis bu ne waxtu bu ne mu ngi suñu mi ngi ci wetu ministre bi di ko jàppale di ko encouragé moo waral teewaayam fii tey donc dañ koy sant di ko gërëm di sant tous les responsables jërëjëf.